Le combat choc la diggante Cheikh Djilass ak touba kouta Junior Cheikh Ndong Djilass mo ñewon ginaaw Cheikh a baxaan a fi an tig mbir Toubacouta Junior bu dem yengal yu neex yi waye Cheikh doomu Djilass jaasi pël Cheikh a ngi noonu doomu Babak la wala doomu Mami Ñaan encore Baye Mané Fone Toubacouta Junior mu ngi koy bëgg a koor mu bañ Cheikh Toubacouta Junior London Albac ziar naa la sa a ngi doon di bëre rakku Ibou Sarr la ma ne Siteu Fafa foo nekk Cheikh am na ngem Cheikh a foo toog ma fi traîner ñaxal toog Cheikh simpi ko Toubacouta bañ njool la kon Toubacouta si njool Cheikh simpi na ko daan na ko doole doxul jàmm doole doxul jàmm ndeysaan ça c'est fair play